Patisen vous offre votre série seen safal bi ngeen tàmmu ci seen biir waañ ak épices yu naturel yi ko defaree di jox seeni togg cafka bu neex moo leen di ñaanal kooru jàmm. Adja safal bi <laughs> ki my mai hari just Kajoor ngóor ngóor na mën naa la de eh ngóor na jóg na jóg yow tamit na jóg way ah na jóg maa joor def nga erreur fatale yow boo ñëw Ndakaaru doo ma woo téléphone da ngay na jékki ne dara ci dëkk boo xam ne tout est programmé man daal ñëw naa rek ñëw naa ah baax na ñëw nga foo xamante ni da nga dellu de ah. xaw ñëw nga xaw ñëwaat di nga dellu xale góor ah, ñëwal dafa nga ne sol ni nga mel supporter fulla moy jaay Dakar ba ma ñam jeexal ko dara taxul may wax nag waye major ñewum fi ci Dakar amul ben sens major dama def dama tegg gut mom bo boo dekk bi na ma ngi ñew dakar ñu def na France nga jëm fan lay fanan néeg yep fess na del wañu fi des toilette ngor occupé na toilette li ngi wax ni man legi lan la ci man mënuma ci dara han yow xam nga dekk ba ku fa di ñew fi Adja mo tax nga ñew fi ku fi dugg ganu Adja nga dëkk ba ñaata yoon nga dégg ñu naan Adja Teranga Adja Teranga man nga yëpp pourquoi waxoo ko ko moom. man bañuma bañuma mu ñëw fi waaye na xaar ba mu dem mu ñëw ñuy renversante waaye dajaloo ci kër jàmbur ban sant loolu lu muy jëre ah. Major ndox mi sedd na. waaw ah, sedd na de. Hmm. waaw da sol yëre eh, doo xool ni ngay toogee da ngay ñëw rek toog ci kaw nit ñi ba da ngay dindi serviette bi nga sol yére man kay jekk naa ni ah déet loolu kay mënul nekk nag sa waay ah man ko dama gis film yi borom kër yi rafet yi ñoom daal bu nu sangoo ba noppi rek sangoo li ah non loolu peignoir la dafa am eh, heure kan watu hmm? léegi heure eh, eh, tëdd bu jotee nga bokk ak njogay néeg paate seen acca

Jobe am na xaalis de bii ma ñetteelu kër ma fi ñëw waaw moom fu mu xaalis sax Madior li nga war a waxtu loolu fexe ba delluwaat dëkk ba loolu nga war a lijjanti doomi góor nga nag wax ju ñaaw ju ne teg nañ ko sa der bi ajaa ci boppam da asal salte dosanggo, sangu da ngaa xeeñ. est ce que sama moko di gay moko wax mako bet man man sa bop mako bet est ce que gis nga muy toog ak yow mako bet ci neeg muy wax ma ñoo muy naxasal di di def naxas sa kandang bu doon ma yow nak damay delu tax man ki nduma gëna goré yen yi teranga jaru ko nag yàlla joge dina ko wonni deretu gor pire mooy doo sama yaram bi reefen pire la kenn gënuma gore hmm. dina ko wani fi ko fi gënul rek la gënul la ñaw jarul mer jarul nga fi nek di mer waaw man nak do fi tok ñu yak sama der Leg lay juk dem ñibbi ah, ah, wax ma la nga dem ci guddigi ni de hmm day man ni man dama saytaane la am wala naa féq fanaan bu suba nga jël say bagage romb ko bu lo joxe paas bañal bu ko ray ko ci biir kër gi man kay sumay xey fajar tel di dem Yang nga sunu dom bàjjen mulay wax wax wax su ma ko waxoon man dem naa sama yoon bu yàgg. leer leen de Madior les filles. oui maman. oui seen papa Madior. xamuñu ah, seen papa la de. ci kër gi la bokk. kii mii xam. naa ko. festival repas bi passé yëngal na ko. dégg loolu. mooy loolu tama yi. maa jox dégg la def de. ah doo tàggoo. ma lekk moo neex. waaw ah, da tàggoo nag. Hmm. gisoo sa disquette yi moom màgg nañ bi <laughs> ay disquette lañ léegi moom. ah Madio Madio yow réewoo di. suur na. Saydore. Paate. waaw. Adja. waaw. suba dama bëgg yeewee ko. yeewee ko. waaw. yow tax. li moom doy na waa de. dara. maa joo la moo la fi nattali. dara naqaru ma man daal maa bëgg dëkk ba rek. moom doy na waa dem yi moom metti na ma nag maa jox parce que man moom bu doon sama sago fii ngay toog ñu woorandoo ba wari ngay doog a dem waaye nag gannaaw noonu ko ko gisee ah balaa ngaa dem ñu ma jox la yóbbante waa dëkk ba rek hmm? ah, am naa lu ma metti moom

té comme jogoy mi ma nga fa duuru tamit sama dom néna da fay dem donc da fa melni man nga fa yéen a ngi tok ah maajo mi da melni fo wul di ma maajo da nga tak bagage ni mom da décider na ni ah, mom wax deug yàlla mom gënaluma waye ah comme japp nga yoon kon baax na lii nag yóbbante waa bala at bu jot si loxo jogoy mi la ko don tek waaye comme yaa ngi dem ah boo demee si jàmm ak salaam nga yeggee leen ko eh, Adja bañu ma ngeen jox ko sax waaye àdduna loo gis baaxantal la at mu jot maa doon yóbbu enveloppe bi dëkk ba te maajoor mii xel ma neexul te néew na doole mën naa génn fi ñu agressé ko yóbbu ko Paris ah dara taxul may wax nag du dara dara taxul may wax jogoy yow yaa fi wax ne fii ngay korité te yow chaque année waa dëkk bi dañu daan yéex a jot seen i enveloppe ndax yow te comme kii mi ngi dem léegi kay moom bu àggee mën na leen ko jox comme ça ñoom ñu mën a préparer wu correctement fête bi na ko yóbbu. Madior bii moom pour yow la. bi boo demee pour waa kër gi la. bi mam fari fay moko mom kan mam fari fay mam fari fay wa du ko fere lan mam fari fay mi ko cialen mu cialen cialen aha cialen mi ci ginnaw xam nga ni fofu kër ben magge dafa muy ki mam rem sen yo tour bi nga bind ci enveloppe bi foko jele kon ah xana li moy liste bi ma jogoy don jox rek man de bi ma juddo ba légui maa nga fa waaw. Ah. kii nekku fa. Ah, jàll ci beneen. bii Baye Omar Jonn moo ko moom. kan. Baye Omar Jonn. Baye Omar Jonn. Mhm. kañ la dee. hay kii kañ la dee. ah ma jaaxal. gaañ na bu yàgg. waaw lu mel noonu lu muy amee te yëguñu ko jógoy yow kii daaw enveloppe am demul. ak daawaati jéeg di. waaw jógoy moom euh, enveloppe bi masaana dem dama ko ci daan defal ay sarax dëbb ay nàkk jox ko xale yi euh, wàccal ko ci kaamil waaye du lenn nag wax dëgg yàlla ay sarax rek laa ko ci doon defal. ah kii de dee na bu yàgg waaw hay hay hay. Avec Diwan Décor, votre personnalité devient un style.